bi mbégte la ñuy am ak contentement di ak yéen kon ni ñu koy defee saa su nekk tey nag ma toog fekk sama góor MC Mass ma def rek lu dul bàyyi ko mu nuyoo MC noo def. Rama maa ngi lay fay di la ziar di fay di bëggee mbokki euh, ak di nuyu Parcelles Assainies 1 bu 26 di nuyu waa Sénégal yëpp di ñaanal suñu Mountakha Mbacké mu yàgg fa te ak bopp xalifa général. di ñaanal kilifa diine kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla fi suñu borom def jàmm. amin yaa rabbi MC tey nag ñu fa yéene waxtaanee li nga xamante ne ni eh, daanaka eh, moom la ñëpp di waxtaanee muy wàllum Ndeye Ndiaye Banaya ak Sidi Diop. coow li bëri na trop ba tax na moom Ndeye Ndiaye Banaya génn na tontu li nga xamante ne ni eh, moom mooy ñenn ñi parce que nee na kenn gënu ko sonn ci biir aar bi nee na day bëggal nit ñi mais moom bëggul. waaw ah, vraiment wax na wax bu daw yaram ne maa ngi bëggal nit man bëgguma vraiment gis naa ko muy wax di jooy. laaj na nit ci jege ko dimbale ko parce que xam naa ne xale la te sonn na parce que pression bi ko gars yi teg attanatu ko kon laaj na muy ay mbokkam muy yaay muy keneen ak keneen nañ ko jege di waxtaan ak moom parce que boo ko gisee ni mu waxee démb ba jooy sénégalais yi yaakaar naa ñëpp ñu ko seetaan seen yaram daw na am na lu ñu njëkk surtout nit boo xam ne am nga sentiment wala am nga yërmande ci doomu aadama man nag sama raxal woon boo xam ne xam naa ko très longtemps yàgg na trop mais depuis bi mu siiwee gisante mais li ma koy wax daal mooy ay mbokkam nañ ko gën a jege waxtaan ak moom parce que sonn parce que pression bi ñu ko teg attanatu ko mais leneen li ma ci mën di wax mais yow ñu ci bari gars yi dañ koy def mais soo bis jaru ko parce que ànd dagan na tàggoo dagan na mais tàggoo mën na noonu rafet teñ moytu xasante yeeg ñaaw xasante yeeg ŋàññante yeeg waxante lu ñaaw ku nekk loo xam sa morom bëgg ko weer parce que comme ba ngeen ànd kenn yëgu leen bu ngeen tàqali ko kenn waru leen yëg man loolu laa gëm quoi d'accord euh, mais tey MC bu ñu toogee dégg Ndeye Ndiaye Banaya yaa euh, sii di Diop bu mu ko topp ba mu sës nee na ko euh, boo ma xamalee benn xamal naa la ko fukk est-ce que diggante boobu noonu nekkul di commencé ñaaw. waaw mooy li may wax rek xam nga ànd jayante wéet jëwante baaxul bu fekkee ne ba ngeen ànd ku nekk yaa ngi tagg sa morom kii naan ko sama papa nga kii naan ko sama doom nga kii naan ko sama mag nga kii naan ko sama sœur nga ñu dem ba taxali ko am ku nekk bëgg a taxaw ŋaañ sama loolu day day nekk loo xam du du lu rafet. te man li ma gëm mooy xuloo day rafet ndax ëllëg mën ngeen a àndaat nit même bu ngeen tàqalikoo waxantee la ndax suba bu ngeen àndaatee mooy tax ndax tey jii nit di ngeen tàqalikoo nga wax ko lu ñaaw loo xam suba bu ngeen àndatee kenn ku nekk doo mën a siggi xool sa morom parce que ñaar la nit di def doomu aadama te doo ko fàttee muy yoral ko lu yoreel ko bor ak def ko lu bon ñaar yooyu ku ko def doomu aadama lu mu yàgg-yàgg doo ko fàttee kon nañ ciy bàyyi xel mooy yoral nit ki bor ak def ko lu bon waaw doo ko def doomu aadama lu mu yàgg-yàgg foo ko gisee sa xel dinañ dem ci moom kon loolu na ko nit ñi moytu Ndey Jaay xale la mi ngi ci yoon euh, Sidi Diop xale la mi ngi ci yoon Sidi tam gis nañ yàgg nañ ko attaqué mais kenn ko dégg tamit mu génn wax lu ñaaw mm-hmm. te yaakaar naa loolu tamit lu baax la ndax noppi rek arma na ndax law kaana law kaana kalaama fiddi tan waaye law kaana sumta sahaban dañ la wax bu doon xaalis noppi mooy wurus mm-hmm. kon doonu nit lu ñu la wax rek da nga war a tontu wala da nga réagir ci saase ndax boo nee tekki tekk woon la yoon mm-hmm. kon Sidi gi gën nañ ko waxagul dara mais kii tamit xam naa xol la waxee mais xëy na meram la jàpp te jigéen moom gis nga ko su meree rek mën na wax mais na ko nit ñi daal jege waxtaan ak moom surtout ay staffam suwaat ay waajuram mu bàyyi coow li quoi te muñ ca xam ne lu metti doomu aadama lay dal ndax yàlla mooy teg doomu mooy teg natt doomu aadama. mais yaa ngi koy wax euh, sànq si say biir wax nga ne nit ñi nañu bàyyee bu ñu tàggatoo rek euh, di di wax di waxan te telu ñaaw parce que moom nee na jamono ji mu ngi jot benn vidéo euh, boo benn vidéo boo boo xamante ne ni ñu ngi ko ciy wax naan ko da ngay jaay tey sa bopp mais est-ce tey waroon na woon dem ba yegg tey foofu. yaa ngi woon nag fu ama am solo. waaw li ma ci wax man papam vraiment nit ku baax la xam naa ko parce que jili deer sama benn xarit maa ngi koy nuyu au passage moo ma ko présenté mu ñu vraiment sama studio mi mi ngi nii su ngeen bëggee ngeen ñëw nu mu leen neexee vraiment di nit ku baax di taalibi Sëñ Fàllu di ko ko bëgg Ndeye Ndiaye tamit vraiment bi ma koy xam tamit xale la bu ñuy wax Mami Faye maa ngi koy nuyu moom tamit moo taxoon ñoo xamante depuis Grand Yoff mais daal li ma ci en tout cas li ma ciy wax daal mooy instant bi am na problème na ko ay mbokkam jege ñu waxtaan ak moom quoi delloo si ko parce que xam naa ne am na lu ko naqari te suñ ko bàyyee nii ak ni muy génnee nii di def sorti mën na wax ba wax lu ëpp wala mu wax lu sax loo xam ne bëgg koo wax mais ko jege waxtaan moom delloo si ko pour mu ñëwaat ci société bi quoi. d'accord mais ba tey dañoo déggaat tamit euh, mu wax parce que moom nee na euh, ni euh, li ko Sidi Diop def sax nee na looloo tax tey mu bëgg a arrêté gum showbiz bi nee na wante bokk na si divorce am bi nga xamante ne ni def na ko diggante ak boroom këram ki nga xamante moom mooy Maguette Fall. waaw boo déggee ni muy waxee da xam ne bëgg na jëkkëram parce que nee li ma gën a bëgg sama àdduna moom laa bàyyi muy sama jëkkër mm-hmm. kon tey ba tey xelam mi ngi ci moom mm-hmm. kilifa itam bu ñu ci mënee doxaat pour delloo ko jëkkëram nañ defaat loolu rek delloo ko jëkkëram mm-hmm. loolu moo gën quoi parce que yaakaar naa ne ba tey doylu ci waaje te waaje tey doylu parce que nee na waaje ba léegi mayegoo ko baat comme mayegoo ko baat sëy bi jeexagul na ko mbokk yi dem jege rek waxtaan ak moom xool nuñu defaraatee sëy bi moo gën a rafet bu ko defee ñu ànd continuer seen bëggeel quoi ñu gis euh, moom li coow li di bëri bëri ba tey moom waxul mais yëkkati na li nga xamante ne moom mooy oto euh, Ford may ko ki nga xamante ne ni euh, moom mooy Ndeye Ndiaye Banaya Banaya aussi yëkkatiwaat oto bi jox ko papam waaw ah, Waly bu defee loolu xam nga Waly moom bu ko defee dañaan répétition la waaw mm-hmm. ah, bu ñee jinaxaa ngi ne benn la waaye bu ñee jenee na nga jenee na mooy yu bëree rek parce que Waly yàgg na may oto loolu du dara moom mm-hmm. vraiment ñu ngi koy rafetlu man mii sax bu ma moyul oto boobu moytuwul ma jëlaat gaali yi de comme ngi may gaay oto rek man war na ma jox ah, ah damay jëlaat gaal yi de waale di di maye oto rek bàyyi ma fi man ma topp kalandoo yeeg car di rek waale boo ma joxul oto naa dugaat si gaal de <laughs> vraiment di ko rafetlu parce que xool na sëram la vraiment mu yéene ko jël oto may ko ko xale bi tamit jëlaat oto bi jébbalaat ko papam vraiment muy lu rafet kon dangay ngay wan xale bi am na yërmande ci papam am na yërmande ci yaayam parce que tey mënoon a jël oto bi di ko noosee di ko taxawaaloo di ko dosé di wane ne am naa oto mais def ko dana man oto bi xale laa doyuma ko dara dama koy jël jébbalaat ko sam <coughs> vraiment muy acte bu rafet ñu ngi ko ci ñaanal yal na ko yàlla taxawu te ñaanal papam tamit oto bi yal na ko muurloo mm-hmm. te muy lu lu ko jig daal mm-hmm. waaw aussi gis nañ ni euh, keroog ba Ndeye Ndiaye Banaya taxawee fële ca Baara Bundi euh, ne léegi moom mu ngi bokk ci biir euh, Faramaréne loolu indi ay wax ay polémique parce que gis nañ ni ku ci mel ni Euh, Omaro moom bi ñu ko ci laajee moom dafa ne moom moo indi Ndeye Ndiaye Banaya nee na parce que waa côté bee ñoom nekkuñu di liggéey mais tey est-ce que Omaro war na di taxawee di waxee genre wax yooyu noonu naan waa farañ faranceek waa xam nga showbiz moom euh, yëg-yëg la rek ku nekk fi nga ko sentiree fa nga koy defee Sadio Mané Liverpool la jógee dem Bayern na jógee na Bayern na ma nga al azar quoi fële ca naar ya mm-hmm. parce que ku nekk fa nga sentiree bu loolu du problème mm-hmm. Ndeye bu fekkee dafa dem ci Syrie dem ba yàgg centre mu ñëw ci wàllu centre boppam loolu amul benn problème li ci bon mooy li ci gars yi def nekk ci ginnaaw di sànnante ay trac di xasante di waxante la loolu mën na ci ñàkk parce que Ndeye Ndiaye suba mën naa dem àndaat ak Sidi Diop waaw non bañ a gëm àdduna fii lu Omaro fu mu jóge woon du ci waale mm-hmm. dem ànd ak Sidi Diop mm-hmm. jóge waat ci Sidi Diop ñëwaat ci waale mm-hmm. fu ne fii loo fi gis rek répétition la amoon na fi rek ngay wax amoon na fi amoon na fi njëkkee woo ko fi te doo ko fi mujjee loolu rek bu ko ci xool dina xam ne lépp war na mën a rafet Omaro ci waale la nekkoon jógee ci waale dem ci Sidi jóge waat na ci Sidi ñëwaat ci waale Ndeye Ndiaye tey mën naa jóge waat ci waale demaat ci Sidi na rafet rek jërul xasante jërul ŋaañante jërul benn wax du ñaaw soo ko def rafet te xam ne musique la te ñëpp ay xale lañ te defaguñ dara kenn perte ko ci ku ci nekk sa wërsëg mu ci sa kanam tant que yaa ngi dund sa wërsëg jeexagul ci ci kaw suuf ndax suñu borom moo ku nekk li nga nekk na nga ko gëm te góorgóorlu rek yàlla jàppale ñu bàññi xasante ba ko quoi ne aussi ni Pawlish mbay moom dafa génn euh, dal ci kaw ki nga xamante ne ni moom mooy euh, Omaro parce que nee na ko euh, yow mën nga tas label ba pare ñëwaat encore naan da ngay tasaat fi nga xamante ne ni moom mooy fara maareer moom moom daa mel ni moom kàddu yu muy yëkkati di ko wax neexul si ñenn ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy fréquenté Wally Ballago Seck waaw loolu yëpp ñoom ñëpp ñoo bokk benn ikiri rek xam nga tey jii li olof di wax ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj xay na moom na Omaro waxee giseewu ko moom it mu génn waxee nee na mais lu ci man di am ñoom ñëpp nañ toog rek comme am nañ ay kilifa ñu toog waxtaan woo leen ñu toog waxtaan jéem a juboo nekk benn moo gën sànnante track bi quoi mm-hmm. parce que Omaro gis-gisam la am Pawlish Mbaye gis-gisam lay ku nekk waxee na nga sentiré tamit mën nga wax ba wax loo xam foog na yaa ngi defar foog na yaa ngi yàq jaru ko daal man daal li ma gis mooy ñoom ñëpp comme ñoo bokku topp bëgg ko di ko jàppale muy Wally Seck mm-hmm. waruñoo def leen loo xam dañ leen xeeb quoi ndax bu ñee ñaari niti waale ña ngay xuloo ña ngay xeex du neex waale di neex ñi mu àndal kon te loolu dooleelul waale pour ñu dooleel waale dañuy àndandoo nekk benn bloc pour pousser waale waale jëm ca kanam ndax yenente bi moo ne ajjama abdourahman su ngeen booloo rek yàlla day def yërmande ci seen biir kon nañ jéema a booloo te bàyyee xuloo bi parce que jaaru ko quoi dañuy ñëw ci li nga xamante ne ni mën naa ne aussi actuellement euh, actualité la parce que euh, démb rek gis nañu amaat na encore ñeneen ñoo xamante dañ leen génnee euh, ci biir ndox bi ñu nekk ay rescapé yow nag nga mosoon na woon dem waaye yàlla dogal nga ñibbi si ñibbisiwaat tey boo toogee dégg say rakk yi ñun ñu ngi jël gaal bi ñii seen bakkan di si rot loolu la la lay fàttaliku. waaw dama ci am lu ma naqari parce que dund naa ko boo gisee may nekk ci télé yeeg rajo yi di wax parce que bëgg sensibiliser xale yi démb rek ñu ngi may wax na Touba am na ñetti xale yu faatu foofu Kër Ñang yoo xam ci géej bi lañ des may ñaan suñu borom yërëm leen te xare àjjana di masaw seeni waajur di ñaan suñu borom may